dañɗen ɗo eɗen calmina hono ministre conseil chef de cabinet président de la république hono maître omar yum eɗen ɗum calmina heɗen calmina hono ministre de l' énergie ceerno alassane mo ganduɗa mo guenne wallu mum a nani ɗo taset bandiraɓe heɗen calmina hono monsieur maire mamadou thiaw maire mo taset hono noon e adjoint mum boubacar sow gor bandiraɓe on calminama onon foof hoɗon gandi wonɗo jolfuɓe mbi tungunne tawetake hina desine ɗum noon wadde en jii ko président makisall waɗi ko e nder commune tasen en jii kadi ko mamadou thiaw secrétaire exécutif pndl waɗi ko e nder commune tasen enen noon yekkidi en tan ko gollade e gollade lesdi men e gollade nokku mo gonɗen o wonda noon si yehi ha tawɗen ɗum en jii ɗo mbawɗen nanggu en jii ɗo mbawɗen nanggu nanguiren de la république saabu kombo men ɗum noon neɗɗo fota fat ha wiye président makisall ko neɗɗo men on pot ɗum andu jaggen ɗum e nder men jaggiranen ɓe bandiraɓe jarani ko haala hako juuta min beltanima on neɗɗo fo e inde mum on jaram merci andaam xam ne gi doy waar ndax ka préparé neel ga waaye comme gi maire coxamin ndigal ale mi ñi ando seereer xay lebet fogola seereer en gidma den in sant a den a paax kan lema in way sant a yàlla ndax a jegan gaay rooga fi mais ga bug ta seet a to a ref kilifa fad kilifa to jambarin me sant a roog a paax in gidma fogole sereer in lema ɓinuno moof me ga koy na fat waagna kawo anda ren a campagne kan kam gimig lele ta jala in lema kan den roogo kino kilifa ka leɓanu o faño ngosaaro rooga dem no xolum o fañin fañin fañin ta wacca caaj o fañ na Oh, nafolum o fañin fañin fañin ta wacca ñaan gaga ran lemban roga nan wallahi azim nani num sanna Macky Sall relem na dom Macky Sall mais kan a fokotan a fo fo le maire in ɗeetin in natin an o kilifano a buga saxare a buga ligi sax in def jeune in lem xam yoon fotin ga dem yoon fotin mais fi gem sax politique vraiment megin fogole sereer fop in gidma maire fop en gin wo aussi ne foggaɗa fogle seere fonenteɓe fogle seere aussi no sanɗana ɗo ene way ceñum en guinma fof assalamu aleykum warahmatullah